bokk naa ci ñi mu mujj waxal mais dama ne choix bi ma def ci shérif bu bu bu doonoon sëtu Cheikh Al Hadj te gisuma ko ci moom dama koy tëb mooy li tumuranke mooy wax li nga gëm lu mu jur nga jënd ko réew mi koo dégg mu ne la wii noo la làq koo dégg mu ne la noo wii la denc shérif day toog wax li mu gëm conséquence bu ci ñëw mu jàpp ni sama gëm-gëm moo ma tooñ loolu lañu ko téewee defuñu ko nag xarit man du sama xarit moom moo ma jàppe xarit mais man kilifa laa ko jàppe sama sëriñ laa ko jàppe ndax tarixa bi ku la njëkk a jël tarixa bi mooy sa kilif mais sama kilifa laa ko jàppe mooy koo xam ni su may sóobu ci dara su ma nee demal ma dem su ma sumboon dara li mu wax léegi sëñ Babacar Si Mansour su ma sumboon dara ba war caa yeggal mu ne ma bàyyi ko wallahi alazim ma denc moom tànnuñu ñun ñoo ko tànn te jóge wuñ ci këru jaahil bokkuñu ci askan wu réer te ñàkkuñu ay kilifa mais bi nu dawee ba dab ko ñoo ko def suñu kilifa def ko sunu wéeruwaay position bii mu am nag bokk na ci li tax ñu tànn ko mooy li ne ci moom mu wax ko noppal la yow miy njaboot noppal ñi koy déglu parce que ànd ak njaboot di leen wax ni est-ce que te fekk yow gëmoo ko loolu da ngay tromper ay nit te Chérif yàlla muccal na ko ci loolu dara ñu ñaan sunu borom takk gi yàlla na ko yàlla barkeel te jàpp naa ni bu doggee ci takk yu bari yi fi jaar yàlla mën na koo barkeel yàlla na yàlla barkeel ko ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla na yàlla sa taxawaay Seydina Umar ibnu Xattaab dafa dafa dafa dafa li tax ma profité mooy waxtaan wi laay daw euh, bloqué naa ko ba pare fi mu toll bu sëñ bi barkeeloo rek dañuy dugg ci euh, tëj Seydina Omar ibn Khattab dafa dafa dafa am benn nit li Chérif wax sànq laay dëggal dafa am benn nit buy jàmbat li Chérif nettali ci góor gi man xis sa boobu danaa ko jël li mu nettali ci góor Baye Babacar Diop Jaxeer mi yóbbu kooka ba ca sëg ya ne ko ku mucc ay fii la am ne nangu ngeen ni loolu waxu dëgg la cheikh al maanaam euh, euh, Seydina Umar ibn Xattaab dafa am benn nit bu ñëw ci moom di ko jàmbat si jabaram may leen ñu daal te xam nga jabar ji lu muy def waaw mm-hmm. ah, mbiru jaam bi waaw loolu moom jërëjëf waaw yooyu moom xam naa Chérif génn na ci Seydina Omar Thierno dafa am benn nit bu ñëw di jàmbat si Seydina Omar jabaram xam nga lu lu muy jàmbat Seydina Omar Imam Souleymane mooy moom jabaram da koy gëdd di ko laaj dépense dafa am jigéen ñoo xam dañoo tàng seen atmosphère la du moom nattu la mooy buy laaj jabar ji ni muy waxee moo tàng jox ma dépense bi yow waa ji loolu métti ko dafa am góor ñu mënul a mhm. mu takk ay bagaasam ne day dem ci Omar waxi ko ko mhm. bi mu yegsee kër Omar fekk Omar jabaram poñe ko ci biir néeg bi mhm. poñe ko ba Omar di sab ginaar di suqi Seydina Omar laa wax de amirul muminin poñe di dóor Seydina Omar di yuqeel di cëppeelu waa ji ne waaw Omar mi may jàmbat si laa fekk ñu doo ci néeg bële ak tey maa wëlbatiku kii sama nattoo tane bosam de waaye daal ne naa nuyu rek Seydina Omar ne jabar ji may ma boobu ma génn wax moom Seydina Omar ne ko jabar ne ko demal te ñëw maa ngi lay xaar waaw bari na koo ñëw di ko ziyaar si fekk waxul la ci li mu jógee <laughs> bu la ko waxoon dootoo ziyaar da ngay mujj ne sëñ bi daal rek la ma def mais pour woon la rek Seydina Omar defoon mbum mi jekkalaat Imam Souleymane daal di génn si ne lan mooy sa yitte. Thierno baal ma rek lan mooy sa yitte yéen da ngeen am chance bu rëy tey ji takk gu mel nii dafa raar léegi da ngay woote ne xalifa bi ñëw kenn béyu man dama jom bi fi xadara bu mel nii dafa tedd léegi da ngay dem cérémonie ñu du doo fay ñëw nga ñëw doo fa gis kenn da nga nit ñi sawarul wala xaw ma lu xew xadara bu toll nii. Mhm. ngeen fekkee am chance ñu jàng lu ëpp junni laa ilaha illallah mm. yeggal ñun ñi toog di ñaan ci takk gu ñu takk mm. man de séeréer boobu mënul dugalaale fii tey wul baale mag yow benn <laughs> Seydina Omar waa ji ne asalaamaaleykum Seydina Omar ne ko maza turid maanaam lu doon sa aajo waa ne ko dama la doon ziyaar si rek dama doon nuyoo di la ziyaar mm. maa ngi dellu Omar ne ko ma soo maa ziyaar lu la indi waa ji ne ko dama doon ziyaar <laughs> mu ne ko Omar Omar ne ko masoo ziyaar waxal lu leer mu ne ko dama doon ziyaar ma yow yaa amirul muminin ma lay seet Omar génne jaaseem rahmatu la ko tudde woon jaasi ji ak yarba ne ko waxal lu leer mbaa ma rey la waa ji ne ko ay la yéwén Omar ziyaar si wuma sama jabar damay gëdd di ma laaj dépense mu bëggoon la ko wax nga fajal ma ko ma ñëw fekk ñu lay suqi taman kenn suqeegu guma ma ne naa dellu kër ga te muñ kon ku parfait ku mucc ayib amul ci kaw suuf ku nekk ñu la jox da koy muñal kon nag Ceerno ci biir bokk la yal na yàlla def ku góor ki mën a muñ ku jigéen ki yal na mën a muñ ñaar ñu muñ nag bu ñu àndee tabaarakallaahu dañuy bokk ci groupe suñu borom yal na yàlla boole leen ci loolu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil aalamiin Chérif waxtaan naa nag ba beneen yoon maanaam tey xadara bi sama waxtaanu tey waxtaan naa ba beneen yoon incha allah beneen sey bi beneen sëy bi xanaa sama rakk ji nag waaw Mouhamed kaay góor gi cen bi fukki junni yi joxe boo gisee ma téye ko boobu ba léegi dama doon bëgg kii mooy baay bi ñu teg ko ci loxoom imaam Yuusuf fukki junni yaa ngi noonu moomoo ko kenn moomu ko yaayam moomu ko moom ko moom xamal leen ko ne fukki junni yaa ngi fi bu ne wari leen ma ko ngeen wari ko ko bu ne westan leen ma ko ngeen westan ko ko bu ne téyel leen ma ba ma ñëw ngeen téyel ko bu dee nag may naa ko diw yoonu kenn newu ci waaw keñ waaw beneen bi waaw mën nga bàyyi góor gi mu kuy def nag da ngay def lu gën rawatina kuñ dénk nga bëgg a def la gën soo amee lii def ko kon nag allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatih lima ughliqa walqatimi lima sabaqa nasir alhaq bilhaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم salaatan taftahu lana biha abwaaba rida wa taysir wa tuxliqu biha anna abwaaba charri wa taasir wa takkun lana biha waliyan wa nasiran anta waliyuna wa mawlana fa nicma almawla wa nicma alnasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin salli ala muhammadin yal na yàlla nangu ñaan bi xurmati rasulillah kon Muhammad jël ci ñaari kàddu rek ah waaw kon cheikh bi ah yal na yàlla barkeel lii la mbaax di jëriñ tey bu ma ko sañuloon ci ñoom duma ko def tabaarakallaahu papaam léegi dix-huit heures et quelque laa woo papaam Bachir ca Mbuur wax ko ko mu ne ma bu la neexoon sax bu ko wax Mouhamed ma ne ko waaye xamagul sax lu ma koy doyee demal ne ko rek wuyu si ma léegi ah waaw wallaay ndeysaan ah, ndax xam na rek su ma ko nee wuyu si ma xam naa ne du toog te ñëwul ma ne ko timis laa la soxla te boobu 18 heures jot na kon nag ñu ngi koy sant ci mbaaxam te boobu xaw ma sax mu nga liggéey wala wàcc na wala wàccagul xam nga boo tëxatee rek maa di day taali waaye teewul rek bi ñëwee ba yegg si fii la xama ndoor ak ñun ñëpp ne rakkam laay maye kiñ maye yëgagu ko aana mii rakkam yëgagu ko ku góor kii dama ne ko noppil rek bu ma paree door woo aana waaye yow bul wax ànn dara ndax dégg nga ko tey yëpp mu ne ma waa déggante nañ sànq téléphone maak ak moom ma ne ko waaye nag bu ko waxagum dara bàyyil rek yow daal man ak yow nañ yëg yow sa papa ak sa yaay sax buy yëg te takkuñ ba pare waaw loolu nag eh, fa ko sañ rek nga koy def doonte sañ nañ ko ci ñëpp laay Ba mii 98 noonu laa ko mayee soxna 98 seen kër lañ toog ca Thiès di waxtaan rek ma ne papaam Ablaye ak Salif daal dinaa leen may soxna ñu géew ma ne ko toogal Ablaye mu ne ah koo may may ma ne ko lu ciy sa yoon kay xamoo ko ma lay may biñ toogee bay maye ma ne ko may naa la ku ñuy wax ndey ware di rakk sama soxna bokk ak sama soxna ndey ak baay may naa la ko fii ma toog ci la ba léegi ñu ngi sëy am na ñu ñaari doom moo kii doon jëli basang yi sànq bi ñuy julli koo koy seen taaw <laughs> da baax keneen ki ci topp mooy Omar waaw ah, noonu laa ko mayee soxna moom mi faama waat di muy génn àddina noonu lañ ma ko mayee woon may nañ ma ko ba noppi xaw ma kiñ ma may nu mel ak fu mu dëkk imaam Lamine Diop bii moo ma ko may te ànd nañu 23 ans mu door a génn àddina 23 ans yoo xam ne mosuma tooñ mosuma tooñ mosuñu xuloo benn yoon lañ ma a xuloo te maa ko tooñ wallaay benn yoon lañ ma a xuloo ci suñ dund te maa ko tooñ ba ma vérifié ba ci biir dama ne ko baal ma maa la tooñ ah waaw maanaam 22 ans yoo xam ne weer wu jot nee na dina dem seeti sëñ Touba Jurbel weer wu jot nag nee na weer wu jot dana dem seeti ko nee na ba mu koy def boobu moom 22 ans la am moom Thierno Yaxya mu ne ma booba du ma xale am naa ñaar fukki at ak ñaar ba may dem di seeti sëñ Touba mu ne ma booba te baaba fekk na monde yi yàlla am 24 monde 24 monde yi. 16 mo 20 124 mille monde yi mu ne boobu fekk na 16 monde yi balaa ci yàlla di def dara diisoog man Yaxya mu ne te àddina ak àllaaxira ngay boole muy benn monde. Cerno Yaxya moo ma ko wax mu ne àddina ak àllaaxira ngay boole muy benn monde mu ne te booba seize monde yi balaa ci yàlla di def dara dana diisoog man Yaxya moo ma nettali lu bari ci sëñ Touba ba maa ngi kaamil bu sëñ Touba bind ci xatti yaddu loxoom Cerno Yaxya moo ma ko jox am na ci ñaar la woon nee na benn bi sëñ Touba ku ko jox ci loxoom benn bi sëñ Modou Moustapha benn bi ko sëñ Modou Moustapha joxoon sëtam a ko yor tey bi ko sëñ Touba joxoon man maa ko yor bi sëtam bi bi sëtam bi am na mbokki murit bu ci fay huit millions bi sëtam bi bañ huit millions mu lànk man moom sama wax ngelaw sax da ko dut upp lettre yi mu daan bindanteeg Baye Niass yëpp mu ngi ci sama loxo moom Thierno Yahya Ali lettre bu ko bàyyi Niass mos bind mu ngi ci sama loxo ci la ma nettali nag ngeen baal ma moom Thierno Yahya Ali mu ne mu ne sëñ Touba ñetti ñaar rek la daan rek lee sëy mu ne soo mosee ñëw ne ko man day soxna si daal daf ma tooñ daal jigéen ji daal nang mu ne ah mën nga koo muñ boo nee waaw mën naa koo muñ mu ne toogal nga toog mu ne dem leen jëlil li ma soxna si ak ay bagaasam boo ñëwee mu ne ko demal ñibbi sa kër ndey ak sa kër baay wàcc na la dégg nga koo mën a muñ da koy bàyyi mu dem kër ndeyam ak kër baayam gannaaw mën nga koo muñ rek wàcc ko mu dem kër ndey ak kër ndeyam ak kër baayam ñoo la ko gën a soxna soo nee déedéet mënuma koo muñ mu ne waa ji la doxal waay jugut jugut jugut jugut mënta muñ da nga koy muñal acca jeex na koo mënta muñ da koy muñal acca jógal dem mu mel nga téye ko koo mënul muñ da koy muñal loolu mooy wax bi koo mënta muñ da koy muñal jeex na kon nag euh, rek mu ngi noonu yal na yàlla dolli sutura kon euh, cheikh bi sëñ Moustapha ñu ngi lay dalal di la wax bismillah di la wax ne kii nga àndal kum àndal ñeme naa ko kii nga àndal kum sopp sopp naa ko kii nga àndal muy sëñ Souleymane sàmb ku bëgg bëgg naa ko ndax li may wax ci Tafsir Gaye di ko wax ci Chérif Mamine di ko wax ci moom Alaaji Malick mii moo valable ci moom koo xam ne joxoo ko tariixa jàngaloo ko mayoo ko wérd juróo ko jëndoo ko du sab dafa xëy tabaarakallahu ba am lim am ñëw ne yaay sama kilifa doyi ca mu indi soxnaam aawam maa ko jox tarixa bi ñu ne déet mu indi ñaareelam maa ko jox tarixa bi ñu ne déet mu ni rakkam bu mbokkal ndey ak baay maa ko jox tarixa bi te moom mi mate na ko jël njabootam ngi yëpp indi leen ne ma yaay seen baay loolu nag kum doy leneen du la doy te tey moom symbole la ci réew mi ndax boo demee këram boo nee tuut mbàkke fàkke la fa wala ñas wala si wala kunta walla ay dara ñëpp ay daje këram moom këram central la day federe moom day federe ñëpp ko soxla waaye boo ko gisee muy dem doo yaakaar ne sax kii nit war na koo soxla ndax modestie ak mbaax ak wàcc ak woyof te li may wax gars yi bari na ko fiy tiitaroo lasaraar kamaa nga xam kamaa ak lasaraar du benn xam nañ li may wax bu baax a baax kamatara ak xam lasraar du benn Moussa jenn lasraar da ngay xam istixraaj yi da ngay xam istixraaj bi turu yàlla bu ne nga xam cosaanam fa mu ak fi muy dugg ak foo xam ne war na faa dugg ak fu mu warta dugg luy ndeyam lan mooy doom yi ko topp lan mooy cuuj yi kañ lay tostan kañ lañ koy bóof soo ko xamul waroo joxe turu yàlla kama tara nag ñu naan la faktumhu kama taktumul mayiti fi xabrihi ku ko kii sikkal léegi nga dee waaw faktumhu kama taktumul mayiti fi xabrihi <laughs> ajibal <laughs> ah da ngay mel ni kuy seetaan dara mooy yooyu tubaab yi takk nii tey ngay gis ni naa waaw fekk mel ni kuy naaw. mooy yu xew yu bees yooyu ñu xewoon fekk mu ngi mel ni kuy naaw gisu leen ko ci télévision bi. fekk mi ngi toog fekk yaa ngi toog benn place mais dafa mel ni yaa ngi naaw ci jaww ji mooy yooyu ñuy takk yooyu ci xam lu sam si la jóge bokk na ci tur yu gën a garaaw waaw mooy lan 3D vers 3D virtuel voilà yooyu tubaab yi ñuy def yëpp dafa am ci yàlla. fa lañ ko jëlee yooyu ay loolu xiitaan tuyur yeeg yu mel ni ñoom min asharaati wa dawaabi ko waneel Cheikh Alhaaji Abdoulaye Si mi raw gaañi nee na la lay toolu xiitaan tuyur yeeg yu mel ni ñoom min alxasharaati wa dawaabi ku gis waneel mamadu ne macha allah loolee ko soob faw moo di keneen ku dul moom doo def te doo dindi doo amal شغل عجب رئيس مالك ما خدا ما خدا وهو المقدر ما يشاء مقادره إن لم تشاء لا ci man jañal maam abduna xaba ma xaba wawal muqaddiru ma sha maxaaliu in lam tashanu ci man jañal Cheikh Alhaji Abdoulaye Si Malick neena wa ma sha yàlla ku sopp fa moo di maam Abdoulaye la la lay tool intaan yee mel ni ñoom min alxasharaati wa dawaabi ku gis waneel xam-xam dugub la ragal yàlla dib tos xam-xam bu àndul ragal yàlla du tus loolu fi fekk Cheikh Alhaji Abdoulaye Si Malick dugub la ragal yàlla moo di tus xam-xam bu àndul ak ragal yàlla du tus Badara Gaye mos nga dégg li waaw am góor gu ma doon jàngal xam-xam waaw ci amun saqon alawoon yesun bii ngay waxtaanee léegi mu ne ma saako dugub la saako dugub nag bëri na loo ci mën a def bu la neexee nga wal defar laax bu la neexee nga defar cere bu la neexee nga def lu la neex li ma la bu la neexee nga def dëxin bu la neexee def dabaraat waaye saako dugub bi dugub ji moom kenn ku nekk ak na nga xam na nga bëgg a dundee loola ngay jël defar ko mooy ahamun bii ngay wax sax ko xalawoon yeesu di ahamu sax ko xalawu yeesu yow doo nit damitu malaaka nga gis nga yàlla ñu yàlla defal sutura damay wax rek gis nga nit ñi xam-xamu baatin ak xam-xamu asaraar xam-xamu asaraar bari na ku la naan xam naa turu yàlla fekk xamu ca dara kamaatara ay feuille rek la dajale baax na nag dajale ay feuille te dañ koy jaay boo demee ñen la turu wi boo ma joxul un million duma la ko jox am na weddiwu ko am na waaye ku dem ba di ko jaay doo waaja suñu benn bàyyi pour dëggal li ngay wax mm-hmm. Baye El Hadji Ousseynou jiite. ñu bëri xam nañ ko. lay xam nga ko. sëriñ Mansour borom daara ji ñoom ñaara daan tëddandoo ca lal ndar. sëñ Mansour def ko mas a woolu ci mujj dundam. ne ko indil ma say woy ndare. Baye Ousseynou nee na ba mu yeggee li mu yor. saak la. bi mu yegg see teg ko moog sëriñ Mansour ci biir néeg. di génne foo comme li shérif di wax. lu mu génne sëñ Mansour ne ko lii da koy liggéey mu ne ko moom laa yor de mu ne ko sànnil périmé na bu yàgg tur yàlla la may doxatul doxatul ne ko gis nga ni mu amee oto yu dawatul na oto yu xewoon oto benn bouton ko périmé na billaay dawatul ni ko yi xewi na boo ko zikkaree doo dem ci goxu yàlla yi fii rek ngay ne di tere ne xam nga am na minicar yu xewoon Sénégal yi daan dem Dakar Malek yooyu ku ko yor fi toll nii amatul pièce dawatul sax feeraayam sax du ko gisatoo ko mu ne ko turu yàlla yooyu nga yor nee na daa sànni genn wàllu saag ba yëpp ne ko yii ci des nag danaa la ko tookeel may la temps nga daw ak moom boo yàggee ba daat nangami at dindi ko dootul dox mhm. waaye danaa la ko visé waatal bis ni ki tey pour wane ni li mu wax lambatu ko de billaay kilifa nii lay mel barke na Tidiane wallaay ndeysaan bëgguma woon sa tudd waaye yaa Cheikh sama xarit la dem leen ngeen laaj ko yaa Cheikh xaafizul mm-hmm. Qur'an la xam-xam bu ne jàng na ko loo xalaat yaa Cheikh nit ku garaaw la Fass Touré la mokkalee alquran xam anglais dafa dégg anglais nim déggee wolof noonu la déggee français yaa Cheikh lu ne la xam waaw maa la ko wax boobu la loolu laa ko jommale waaw man booy ñëw di ma jaay xam-xam moom bismillah du ma la jaay dara waaye boo ma ko jaayee ma jëndal la ko ba wis la ndax loolu la ñu sëriñ iyaan si waxoon ca ndar waaw benn naaru gànnaar mu baal ma mbokk shérif suñu mbokk la moo ñëw fekk sëñ iyaan mu toog mooy sëñ iyaan bu ma doon du tudd ci ci ci korité bi shérif di dem ratt kurusam ndox génn maanaam dafa xaj ci kurus gi rek ndox mi naan satatatatat comme robinet sëñ yaan ni ko eh Chérif ñun lii taxu ñoo jóg sa barke maam daal di génnee kurusam moom sëñ iyaan te boobu sëñ iyaan a ngi sol suwetma la daan sol ak caaya moom bàyyi xëcc suwetma bi nag ba ci jumbax ji piliyaan bi mu daan toog dañ koy filli feere maa la ko wax dangay ngay foog ne kii du doomu aadama mu xëcc kurusam moom sëñ Iyane kurus gi naan satatatatata ak meew mu ne ko shérif ndox ak meew bu gën a cher mu ne ko meew mu ne ko shérif ñun lii taxu ñoo jóg sa barke maam ngeen baal ma dal di tàllal tànk bi moom fekk maraakis bi mu soloon mu ne ci nii dafa mun na cat li rek ne tafat génn mu ne ko am tafeet 10 000 génn mu ne ko am tafeet 10 000 génn mu ne ko am doy na si ne wallaay laal yaa xëy mu ne ko boo ci amee sikk nag demal nga denc ko junniy at du tax mu soppeeku xalaalan laysa xaraaman mu ne ko su ma neexoon nii laay moom nga yor naa la weer de kim yow nga yor. mu ne ko su mu ne ko su ma neexoon lii nii laay dëkkee. déedéet déedéet ma baal ma rek Serigne Baye ma Baye ma Léon Baye war a si dégg nga Serigne Iyane Serigne bañ ba tëdd ci naaj wi yow da am loo bëgg te du ko nangu Serigne Iyane nit ku baax la woon boo gisee ma tudd ko ndar yëpp xam nañ ko il était modeste mais lu ne la xamoon. dal di jox sëriñ bi mu ko joxee eh, eh, xaalis bi ne ko demal denc ko eh, shérif bi ne ko fii fukki at boo ko dencoon junni at du tax mu soppeeku yàlla nattuñu jiili mbay ñëw ca daara ja boobu daara ji xanaa ëpp na ñaari junniy ndongo ñii vingt mille ñii quinze mille vingt mille quinze mille vingt mille quinze mille ba daara ji daj sëñ yaa dajale ñëpp ne leen tey ne ñëpp dem cinéma ku mos dégg loolu na ñëpp dem cinéma bu ngeen paree ngeen jënd ci lu ngeen lekk door a ñibbisi ca ëllëg sa mu woolu ji li mu ñëw boobu mu ngi door a tabax appartement boobu ci bunti kër gi tabaxaloon ko rakkam alaaji Malick moom laa doon wax keroog moo doon ambassadeur u Sénégal ca arabu ya ci jamono Senghor te génn àddina boobu bâtiment bu bees la kenn dëkkagu ci mu ne jiilikaay ñu ñëw bu ne bismillah dugal caabi ji ubbi ubbi bunt bi paquete xaalis yi ba ci bunt bi néegi yëpp bismillah ubbi paquete xaalis yi ba ci bunt bi mu ne jiile xam nga xaalis nga am mu ne mu ne ko maa la ko pële su ma neexoon kër gi yëpp nii laa koy def mu ne ko dama lay wan ne rek xaalis bi nga yor yor naa lu kopp dama koo soxlawul di ne ko kaay ñu demaat ñu dem mu ne bismillah ubbi du gis dara mu ne ko walillahi xazainu samawati wal ard mu ne ko man trésor yàlla laa yor du jeex sëriñ Iyaan nit ku doy waar la woon nit ku doy waar la woon sëriñ Iyaan toog nañ ci biir ëtt bi bés toog nañ ci bu ci ëtt bi bés sëñ Iyaan woo diw Basiru Saar mii ma doon waxal léegi téléphone sa papa ci la bokk ne ko dem leen ci sama xabaru baay ngeen gas ci kaw tuuti rek indil ma di ngeen fa am lu ngeen fa fekk ngeen indi ko ñu dem gas fekk fa lu mel ni néew estati indi ko teg ko ci ëtt bi mu ne tas leen ko ñu tas ko comme néew la ñu ngi ko sàng perkaar defar ko sof yëpp ñu ngi ci jam sof bu ci nekk fukki pusa ak juróom-ñett maanaam ci loxo kii sof yi rek pol yi benn téere ñu ngi ko takk ci bopp bi maanaam lii bopp estati la dañ ko def comme nit lii bopp bi ñu ngi ci takk téere mu ne dindi leen téere bi ñu ne xotti leen ko ñu xotti ko ñu bind ñu ñu ngi ci bind sëriñ iyaan na dee wala mu taxu mu diw moo ko fa yóbbu bés sàngam heure sàngam fay na sa gardien bi doon garder xabru yi fay na ko temps ba mu ko koy fay ci guddi maa ngi koy gis diw la ak diw ak diw Nigéria lañ ko liggéeyee indi ko suul ko ci sama xabru baay waaye may naa leen diw ak diw ak diw diw dana dee ren diw déwén diw déwén jéeg diw déwénaati jéeg ñoom juróom ñëpp danaa leen teglante par at toog fi fukki at ak benn door a dee fekki leen layoog ñoom ca kanam yàlla noonu lañ teglante di dee ñu may wax ñëpp ndar Basirou Sarr buy demal nga laaj ak xalifa njaay bii nekk Ouest Foire maa ko yóbbu Ouest Foire mu yore jàkka ji ba ay Aïdara di jiite taawam man la ko tuddee ànd naa fa kii xalifa njaay xam na li may wax fekkee na ko noonu lañ teglantee di dee ba jeex mu ne maa fi des li ñuy bañ ma doon iyaan mu ne ma doon sama baay man iyaan Ousmane si mu ne maa ko doon te ci man la yem am naay rakk waaye lii ma am kenn du ko ci am te moom xam nga ko li mu am ku ko ko jox bàyyi xalifa ñas <laughs> bàyyi xalifa ñas a ko ko jox moo ko wax ci gémmiñam ma dégg moom sëñ iyaan mu ne bi ma matee jàng la fa sama bàyyi xoñ ci jox ma bàyyi xalifa ñas ne bàyyi xalifa nag maa ko jur maa ko jur iyaan bëgg ko lool moo tax ma bëgg mu sori ma ndax rasulullahi moo ma wax turam wax ma kañ la juddu moom laa doon junj keroog noonu alaaji Malick maam borom Touba Cheikh na Cheikh Sadbu ak maam Ousmane mi jor Sëriñ Iyaan ñoo toog ca taatu xëy ga di waxtaan ma wax leen lu gën a garaaw lool xanaa xamoo buntu àjjana yi dafa am bu ubbikoo Saint-Louis ma wax leen loolu tey ngeen xam ko moo tax mag ñëpp jaar ndar ba ci maam limaamu ndar la jógee ñëw taal ndakaaru ba la jógee ndakaaru la ko jox almet bi mu taalee ndar la ko jële moo tax mag ñëpp jaar fa maam as kamara cheikh naa cheikh sadbu maam limaamu laay seydul xaaji maam borom touba bii may wax nag maam borom touba seydul xaaji malik maam Ousmane si bi jur sëriñ Iyane si. ak Cheikh na Cheikh Saad bu ñoo bokk toog di waxtaan sëriñ Iyane ma ko nettali. nee na baayam Ousmane na ko ko nettali. nee na biñ toogee di waxtaan ci warul diine ak nu ñuy doxalee. seen digganteek tubaab bi stratégie yi ñu war a tëral. dañ ci daan waxtaan. nee na biñ waxtaanee ba jóg di dem nag. Seydi Hadji Malick téye loxol maam Ousmane. ne ko bàyyi mu ne bàyyi la ko daan wax ndax nim niroog li mbokk ak tur baayam bokk ak moom sant Ousmane si la tudd moo jur sëñ Iyane si ñu ngi ko denc ndar mu ne mikk ci loxoom ne ko waaw bàyyi sama waaw kuy waaj am gan nag xanaa di nga wax nit ñi da da ngay am gan mu ne ko gan gan mu ne ko soxna si de yëg naa ne balaa ñu fiy jógee dana mucc doom bu góor lay am tee nga ma koo tuddee waay sëñ Iyane ne ko euh, alaaji Ousmane sëñ Ousmane si ne ko ah si kooku am na borom ndax rasulullah wax na ma kuy borom waaye ka cay topp xoolal ka topp yaa ko moom mu ne ko ka topp ñoom ñaar ku ci gën a nekk jinne mu ne ko ka topp yaa ko moom ka toppoon nag moom la tuddee Seydul Xaaji Malick moo doon ambassadeuru Sénégal Arabie Saoudite ci jamono Senghor fa la gaañoo ñu denc ko fa la ko rey sax xam naa ko ndax iyaan cam na sëñ iyaan wax na ma ko sëñ iyaan ci boppam wax na ma la ko rey bañ ci ko fa te booba ñoom ñoo ñoo ànd maam Ousmane doon ku doy waar te kenn xamu ko mu ne ci la ko xoñci nag jox ko ne ko ne bàyyi xalifa ne ko kii di iyaan dafa sori ci man ndax dafa am lu ma rasulullahi wax ci moom bëgguma mu jege ma waaye doyloo naa la yow bàyyi xalifa doyloo naa la ni ma doyloo sama bopp lu ma mënul ci iyaan def ko ci moom mu ne ko dana raw sa doom yépp mboolem mbindum sëñ iyaan yàlla suturaal na mu ngi ci sama armoire bi mboolem mbindam nag mu ngi ci sama armoire bi yàlla def sëñ iyaan bàyyi xalifa lu ne la ko jàngal lu ne la ko bàyyi xalifa jàngal bàyyi xalifa ñëw su lu ne la jàngal sëriñ iyaan sëñ iyaan nee moo moo wax ci moo wax gémmiñam mu ne man iyaan de lenn dong nga mëtta defar nit maanaam bind nit mu ne te loolu sax su ma ko ñaanoon yàlla mu may ma ko mu ne waaye lu mu bind nit rek mën naa ko pour jeexal ñëw na fii ci ndakaaru mm-hmm. moo daan jëndal turandoom yëpp yére mhm. di leen ko jox ni Baye Niass daan def bàyyi it daf daan def loolu mhm. bi mu ñëwee ci bitig bi naan waa ji wàcceel ma piis bi wàcceel ma piis bi benn jigéen a ngi boot benn xale xale baa ngi jooy mhm. jooy jooy jooy jooy jooy jooy jooy yu metti mu ne doom mu ne yaay ji naxal sa doom ji mu xanaa booy boot nit muy jooy nga nax ko mu ne ko wallaahi iyaan mii dafa bari solo rek iyaan noppil ndekete sëñ iyaan lañ ko tuddee sëñ iyaan ne xam naa ko bu yàgg nee na mu muuñ fekk yim doon wàccee yëpp ndeke xale bi la ko doon wàcceel nee na bi mu wàccee ba pare mu ne ko iyaan moo kii ban iyaan lañ ko tuddee mu ne ko sama boroom kër day dofub iyaan si ca ndara la moom la ko tuddee xam naa sax lim gis sëñ iyaan bariwul waaye moom la ko tuddee dafa bëgg sëñ iyaan mu ne ko maay iyaan lii may wàccee yëpp moom laa ko doon wàcceel ndax biig la ma rasulullah wax ne naa ñëw toppatoo sama turandoo bi génn yëpp jox ko ne ko soxlawu ma xam foo dëkk nag maa ngay ñibbiwaat ndar loolu la taalee otom dem ñibbiwaat Saint-Louis nga xam ne Sénégal lu ne am nañ ko te sëñ iyaan tey ñi ko xam bariwul ñi ko xam bariwul rakkam rakkam euh, Boubacar si yéen ñëpp xam ngeen ko sama wëllëra la woon gàmmu gi ñu daan defal imam ahmad si fii ci aradial mbay moo ko daan présider Boubacar si moo jur député bii ngeen gis mu àndoon ak Serigne Mansour Jamil Omar si Cheikh Omar si moo ko jur Cheikh Omar si ñaari kar ñaari ñaari pàcc la am Boubacar si mi ko jur mook Serigne Iyana bokk benn baay Ousmane si yee leen jur Boubacar si moo doon ambassadeur u Sénégal Caire yaayam moom moom moomu moom moom bu déedéet pas Boubacar Cheikh Oumar yaayam ak Cerno Muntaga Ahmad ñoo bokk ndey ak baay dégg ngeen wax yaayam ak Cerno Muntaga Ahmad ñoo bokk ndey ak baay ba pare baayam Boubacar si bokk ak sëriñ Iyane benn baay Ousmane si moo leen jur waaye Sénégal nañuy wax yu baax yi te bàyyi caaxaan yi man yooyu laa bëgg nañuy wax yu baax yi nañuy wax yu baax yi mag ñi baax billaay koo ci laal nga yëg ne kii ah waaye fii laa jóge alxames àgg fa ci Chérif lu pour lu mu wax bu ma àggee fas yàlla xam na alxames ci ngoon ma fekk fa samay doom baay yi toog mu leen ubbi leen ma dugg ci biir yàlla may ma ci guddi gi yàlla xam na ko yàlla xam na ko mhm. guddi googu sama sama maam Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu mhm. laa gis ci guddi gi wisit ma yëpp mhm. mu ne ma fii nangam fii nangam fii nangam comme nit bu am ganam di koy wisit kiram yàlla may na ma loolu ci sama maam Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu yàlla xam na ci moom nii laa jóg dem fa jazakallahu yàlla yàlla yàggal sa te li ñuy wax ci sëriñ gaay yàlla yu baax yi da nga baax rek kenn ku ne xool boppam wax mbiram papam maamam bay ñëpp yow nag yaa ngi laal ñëpp gaa yàlla yu baax yëpp yaa ngi leen laal te wax nga fi wax bu rëy nañu wax seen wax na nga baax rek loolu moo tax nga wax seen wax yàlla yàlla guddal sa fan barkeel la yokk sa xam-xam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nekk ci jeetaay bi yëpp yàlla barkeel leen guddal seen fan yokk seen xam-xam ci barke sayyidul wujud wa ala mashhur sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala li may dox ak li ma bëgg mooy ñu dem ba li ma bëgg laay wax nag li ma bëgg laay wax xam nga lu ma bëgg mooy ñuy dem ba am compréhension bu day ni tiijaan yi daañu dem ba jumaa Tuuba lal fa malaanu wasifa te kenn du leen def dara mm-hmm. ñu bàyyi murit yi ñu ñëw ba rawdu seexul xaaji malik ca Tiwaawan bâche fanaanee jolli xasida maam tu borom tuubaa yi ba bër set te kenn du leen laal man loolu laa gëm feeg loolu amul rek liñ bëgg dañuy raayalante rek waaye mënta nekk man loolu laa gëm te dafa amoon boo demee dingiraay alaaji malik Sëriñ Touba borom di ngi raay fañ dajee woon di puusante kii jullil jiiteel jiiteel jiiteel ba ñëpp mujj d'accord ne Malick yaay mag jiiteel alaaji Malick door a jiite fii la amee woon ci dingi raay ñëpp ñu ngi koy jàng mais lu tax duñ ko jëfee ah lu tax duñ ko jëfee dañ ko a mag ñi dañ daan dem lante ñaata foto ngeen fi gis foto boo xam ne sëñ Babacar Sy ngi toog Seydina Issa Laye ngi toog sëriñ Babacar Sy ngi toog Alaaji Abdou ngi toog Cerno Seydou Nouroo ngi toog sëñ Fallou Mbacké ngi toog ñaata foto ci archive yi ngeen ko gis léegi benn sëriñ ñemewut a jege moromam benn sëriñ ñuy dawante kenn ñemewul je sëriñ Cheikh Tidiane Sy ñaata yoon la fi mobilisé wu jël njobootu Maodo gi yëpp dem seeti sëñ Abdou Lahad am fa ñetti fan gane ji sëñ Abdou Lahad Touba def fa ñetti fan alaaji Abdoul Aziz moo xëdd kaaba gi moom bésu ajjuma mënoon na dem dimanche wala altine lu tax mu dàkk bésu ajjuma xam na ne di julli jumaa fa am sëñ Abdul Xaadir Mbàkke di ilimaani Touba ba mu yegsee sëñ Abdou Xaadir xam na ne kii du saa musaafir ndax fii la dëkk mbokka ma mu ne ko yow doo musaafir seexul islaam nga jiiteel jumaa ji Alaaji Abdu ne ko ñëwuma pour jiite dama ñëw pour wan senegal yëpp ne Touba ak Tiwaawan benn doxal ca kanam ma liqaamal la sëñ Abdou Xaadir dox ca kanam Alaaji Abdu liqaam mu kàbbaar sëlmal Alaaji Abdu jël rajo bi lu mu njëkk a wax alhamdulillahi li yahlika man halaka an bayina wa yaxye man xayya an bayina nee lii ma def man Abdou wóor na ma wóor yàlla ne dana am ñu bari ñu ci yàqoo waaye dina am ñu bari ñu ci defaroo li ma wóorit mooy lii ma def neex na sama maam borom sama baay borom tuuba neex na sama baay alaaji Malick kon keneen kum naqareeti yoonu ab du nekku ci ndax xam naa ne dina am ñoo xam ne du leen neex te loolooy dëgg loolu may dëgg man loolu laa gëm man li ma gëm mooy tarixa yi dañu war a sax jàppalante xam nga nàddante ñi saalum saalum yi daan def nàddante loolu la tarixa yi war a def ñu seet ku nekk sa doole fu mu néewee ñu roqandi la waaye léegi dañuy def kenn ku nekk yaa ngi seet sa point faible li morom nga ngàdd ko mu daanu te ku ne am na point faible mm-hmm. tijaan bi am na ko murit bi am na ko xaadir bi am na ko laayeen bi am na ko yàlla rek amul point faible ndax wa anna al quwwata lillahi jamian kooku amul benn point faible waaye ku dul yàlla am nga point faible foo xam ne dominé nga fa waaye dominé nañ la ci beneen côté loolu yàlla mayul kenn jekku ak jekkali jekku ak jekkali yàlla mayu ko kenn daf lay jox jekkali téyee jekku waaw ma waaw maa ngi ñëw may ma rek tabarakallahu kon nañu bàyyi kii mu euh, Moustapha mu ngi nii am na keneen ku gën a garaaw sëñ bii moo ma ko paas téléphone muy sëñ Abdou bu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nim mel ci man te mosuñu nuyu wante mag moom ma mel ko ci moom nu ko raw lu mu yàq waaye nañ ànd nekk benn nañ ànd nekk benn kenn ku nekk ci ñun la nga gëm ñu ormalal la ko te xam ne ñun ñëpp kenn ku nekk la nga gëm alxaqu min rabbika fala takunanna min al mumtarin cent vingt quatre mille yàlla yónnent la yàlla yónni waaye yónnent bu ne dëgg la indi kon noo koy firi ah, te dëgg di genn te yàlla yónni cent vingt quatre mille yónnent yónnent bu nekk dëgg la indi te am doon wax bokkul ak li moromam di wax lu indi tawraat ak injil ak zabuur ak suufi loolu ak suufi ibrahim waaw kañ dëgg ay yoon yu bokkul la waaye fenn la jëm yàllaa yaatu ba yàlla ja ci Amérique na muy manifestation fan manifestation bi muy manifesté woo Amérique bokkul ak manifestation bi muy manifesté woo fii ci senegal moo tax tàngaay wi ci Afrique ak sedd ba ca Europe bokkut moo tax garabu Europe ak garabu Sénégal du benn noonu yàlla di manifesté woo ci àddina bi nu mu ko neexee noonu lay manifesté woo ci nit ñi kenn ku nekk ak manifestation bi yàlla di manifesté woo ci yow mooy jalaaliyaam kenn ku ne ak jalaaliya bi muy manifesté woo ci yow bokkul ak sa moroom li jaam yi di bari bari nag kenn ku nekk phase bi mu lay woon bu tourné woon keneen beneen phase te moom kenn la moo tax alxaqu min rabbik dëgg yëpp benn la waaye ci sa borom la jóge jóge wu nii mooy uti waaye fi ñu jëm benn la mooy suñu borom subhanahu wa taala moo tax yónnent yi bari waaye ñoom ñëpp yàlla la ñuy wax rek jeex na kii ne yàlla kii ne allah kii ne rahman kii ne malik kii ne quddus kii ne salaam kii ne muumin kii ne muhaymin kii ñëw dajale yëpp mooy rasulullah waaw jeex na yal nañu yàlla defal sutura sëñ Moustapha yëkkatil ñu ay xasida rek tabaarakallah waaw nga barkeel waaw ñoo ngi jéggulu bu baax xam naa ay bayit yu gàtt lay doon rek ñu fasante ko kóllëre ñaan suñu borom guddal fan wi te wéral cër yi te sàmm la te sàmm njaboot gi ndax ñu mel nii rek lañ soxla wax dëgg yàlla nit ki nga xamante ne day toog ndax sëñ Tuubaa nii la ko doon defee maam alaaji Maalik ak gaa yu baax yépp ndaa toog ak seen njaboot di leen waar lii nga def ak ñun sëñ Saliou def na ko ak ñun ba tàyyi mooy toog di ñu wax dem na ba mu gi sax muy wut layu di di def suuf di ci tomb tombam yooyu di ñu jàngal kon njiit lu nekk li nga jiite moom rekk nga war a njabootee te jàkkaarloo ñoom di leen wan yàlla ak yonent bi ndax loolu rek moo fi nekk sëriñ bi li ñu jàngal loolu rek la mooy topp sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tey jël sa bopp def ko ni doomu aadama yëpp ndax sëñ Tuubaa moo ko njëkk sax fala tuaadu man raaytum faahu la wax yuxriju laa ilaha illa allah kon képp koo xamante ne mi ngi wax laa ilaha illa allah dina bu ko noonu daat na fa kullu wirdin yuridil murida li xadratillahi wala yaida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmad altijani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qataan ala sawab kon loolu moom rek lañuy jàngal moo tax ñun xeebuñu benn jotaay ñu lenn lu baax lu ñu gis ci lu baax rek ni ñu ko sëriñ lu jàngale mooy dañuy bàyyi lépp dem wuti loola ndax lu baax du doy bu doon ba lu baax doy na moom mi bi mu jógee ci daara ja doon sëtub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ferenkulaay waaye bëgg lu baax ak lu baax moo du doy ba tax mu jël taam ak di ko jox gaay yàlla yi ak nit nit yàlla yi loolu nag Serif yàlla na la ci yàlla taxaw ñu bu ñu gisantuwut jëmm ji it ñu ngi gis ñu ngi topp YouTube bi depuis bi ñu ko yaa oustaz euh, waxee ba léegi te gisuñu ci lu dul njariñ am na ci yoo xamante sax ñu ngi koy partagé ak di ko diggal doomu aadama yi ngi ciy dugg di xool ndax lu dëgg moom dëggu la dëgg moom dëgg rek la waaw amul murit bi amul xaadir amul tijaan man ci ñëpp rek laay wër waaw te noonu la ñu ko jàngale ñu ngi sant bu baax te fasante kóllëre bu baax a baax di la ñaanal suñu borom guddal saw fan wéral say cër Idrissa Diop nag euh, conférencier moom moo mooy mooy sama buntu ci gars yu bare bare moom sama xarit la waaw muy waaw muy muy sama wóol rek nga xamante ne keroog rek ñoo fanaan bisu badar bi ci waa Sénégal Borderie ñu ngi sant bu baax te di la di la di la di la di la déggee di topp waxtaan wi te sàkku yi nga ñaanal ñu ndax ñu ngi sàkku ñaan ay dong rek lañ bëgg nañ lii ñuy defal yonante bi di ko tàgg euh, kenn bañ ñu cee man waaw ñu ngi koy sàkku di ko sàkku ci mboolem taalibe yi yi la topp yëpp barke Seydina Muhammad ñu ngi siyaare yaa ostaas moom man ak moom ko ni mu waxee rek àjjuma ak di euh, alxames lañu ñu benn bis doxalu ci suñu diggante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 lillahi rabbil lazi qad jadali bihuda kulli khadiman liman taqdimuhu wahida أكرم بمؤمن حافي ولا شريك له في الملك والحمد لله يولد ولم يلد الله جل إله لا نظير له قطعا ومن بسوى سجاء قد فنادى له سماوات والأرض جملتها ما ساك نواما لم لم يكن أبدا الله رب جالي لمالك أهاد بر لطيف كريم من لم يصل سمادا محمد أمسي على قدام محمد خير من لله قد سجد مع مهبتي المختار سيدنا حبي المغانية والأهلين والولادة دمي وأهلي وأولادي فداء له عبدا خديما له مذ كان لي سنادا محمد والتسق خير صلاة الله في الآل وصحبي من تفضيلهم رهيلا عليك يا مختار باجتهادي في كل ساعة على الرشاد عليك يا مختار باجتهادي في كل ساعة على الرشاد رشادي ولازم التقوى ورم تعلما ولا تكسر لعبا فتندما واصبر على البلاء والتقدد ودم على سكوت والتجلد wajitahid xaaji xaaji Malick dellool ñu ko cant laa la laa la bëgg joxaat joxaat ko sang bi mais kii de jar na jàppale de man de baat yu leere nii moom tabaarakallahu Alioune Badara Ndoye de moom mi ngi noyyi waat rek sëñ bi macha allah rabbuna tur bi nan la eh, Moustapha Diop Taysiir macha allah rabbuna yal na yàlla barkeel eh, waaw maxaarij bi baax na dem nga ba noppi tabaarakallahu waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw vraiment de vraiment de vraiment de wax dëgg yàlla li li li nga wax day neex na dégg lool baa ci ku jàng tuuti arab rek mën ko tekki ndax ni muy dalante mu dem ca daaliye ba maam Cheikh Mat Bamba liggéey wax ca lu ne yal na yàlla barkeel waaye ba ca gën a am solo rek ndeke woo Serigne Touba existeetul woon nee na sama deret ak sama alal ak doom yi ma jur ñu taxaw di ma xool yéguñu ko waaye weccoo naa leen sopp sayyiduna muhammad kon lu fi ne li ma amoon yëpp existeetul mahabbatu rasul rek a fi nekk yal na yàlla dolli leer yi jërëjëf loolu it sa góor gi wax rek mu jeex mu jeex mu jeex mu jeex jeex na إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا مختار في الخدم سلي عملون الخاق يا أملي سوى المحبة والمحبة التعظيم والسلام وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا مختار في القضم ليس لي عمل الخاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم والصلاة يا لا إلهي وجزيا عنا محمدنا مختار في الخدم لا إله إلا الله حب رسول الله إلهي مع شراتي يلاقي في أول زلمي في أول زلمي لا لكي يلاقي إلهي وجزينا خير من كيدي بصيرته ما امين يا رب العالمين يا الهي وجزيا ابدا عما محمد tabaarakallahu yal na yàlla fayal ñu Mawlana Cheikh Al Hadj Malick li shérif ne woon mooy bunt bi yor caabi ji moo tëjati de yal na yàlla dolli leeram mais benn baat rek wa laysa li amalun alxaaka ya amali siwa almahabati wa taadimi wa salami Cheikh Al Hadj Malick dafa dem ba mujj mag ñi ne ko bul tiit yàgg yàlla bu ngeen dajee nga yay ko fi nga jaar jaar taqban mag ñi dañoo jommi. Mhm. nee nañ duñu du ñu yëg fu muy tëddee. te bu fajar jotee nga seen ko muy julli. Mhm. mbaa mu toog ci téere yi. Mhm. ñu ne ban waxtu lay nelaw. xamuñu ko heure bu ne dañuy tëdd ba ko fi. bu ñu yeewu gis ko. bi màkka jafee mu xuus aji màkk. bi bind ci yonent bi jafee ku ne da dajalaatu Cheikh Al Hadj Malick synthèse yonent bi. ci benn téere ñu tudde ko xilaasu zahab. def ko ci sept jours. commentaire téere bi ci treize jours lépp tënku ci ñaar fukki fan mu def ci rasulullahi leeram liyam ba ca néewam dara yonent bi échappé wul mag ñi ne ko boo dajeek yàlla am dara mu ne leen na kon négal ma wax leen la ma yaakaar ëllëg julli naa ba julli jafe samp naay jàkka li sëriif wax ndar moom man dégg naa kilifa gu wax ndar ne turu yàlla bi gën a pour nga zikkar ko mu nangu ci biir réew mii faw nga fanaan ndar boo fa loolu moom dégg naa ko ñu ne boo fa fanaanul moom ba atmosphère ndar upp la mën ngaa ne ci réew mi nag fu la neex di ko joobe mais du dem faaw nga fanaan fa Cheikh Al Hadj Malick négocié ak yonti yàlla Muhammad ba mu ne ko samp fa zawiya fa la njëkk am zawiya te zawiya du du du du lu ndaw zawiya du ndaw de da am ndigal ci sayyiduna muhammad ah mu samp ko ndar def fa la mu fa def nee na ñu li Cheikh Al zikkar ci biir ndar zikkaru ko ci beneen trottoir mag ñi ne ko boo dajeeg yàlla am dara mu ne wa laysa lii amalun aw ma benn jëf bu ma jëf bu leen war ma mën ko présenter sama kanamu boroom man Cheikh Al Hadj Malick boo xam ne bu may dem di dajeeg yàlla tiit am naa xalaatu yor ko si benn rek laa garanti yàlla mën naa seet julli yi gis ci lu ko neexul ndax nit laa sama aju màkk bi ma ñibbisee waar na nit ñi ndax ñetti at aller retour mën na yéem nit ñi ma tiitaru ci doom yi ma jur ni ma leen yare mën naa dem ba tiitaru ci zaawiye yi mën naa dem ba tiitaru ci tiir yi ma bind mën naa dem ba tiitaru ci waaye Cheikh Al Hadj Malick ne bu ñu dajjee sama xol yowmal qiyaamati sopp rasulullahi tricherie amu ci mu ne ñeme naa ko présenté ci kanamu yàlla si wal mahabbati ñaareel bi de desit wa taazimi màggal naa yonent bi te tiitar amu ci triché wu ci sama intérieur wa salami mën na maa gën a rëy tànk mën na maa gën a gaaw waaye man Maodo seet leen sama tànk heure bu jógee fu tànk Rasulullah lay jógewul du Alaaji Malik nee na ñett yi moom garanti naa ko moo tax wa laysa lii amalun aw ma benn jëf alqaaka boo xam ne xalaat naa koo daje yaa amali yow sama mébét siwal mahabbati wa taazimi wa salami yàlla yàlla dugal nu foofu bi xurmati rasulillah Chérif la ma waxoon lay waxaat ñun tànnooñu am déet waaye mag mu am tuuti bijjaaw fii am fii tuuti sëñ bi kooku ku mu tànn doful am déet ñun ñoo ko tànn te li ñu dab ci yow ba tànn la gis nga gis nga gis nga même bu bu bu bu maanaam nit da koy libéré mooy nga am sañ-sañu ne ko buñ bokkul position li ma bëgg naa ko wax waxal yow it li nga xalaat Chérif lan lay dund ak ñun mooy bu dara xewee position lay wax ne nag yéen ku ne sa xalaat wax ko man li ma gën sama dabir dafa am benn góor gu ne ma àdduna daal li ma fi gën a neex ma ne ko lan mu ne mooy sama jikko bi ma ne ko déet waaye mu ne ma ni ma mel a ni ma mel ma neex ko tax mu ne ma li ma am yëpp ci sama jikko bi laa ko amee am nay jabar ami doom am oto am kër lu ma deseeti ma ne ko dee dem àjjana mu ne ma sama jikko bee ma neex te fu ma dem ñu ne ma dangaa tàng nee na ma te fu mu wëlbatu ñu ne ma dangaa tàng mu ne waaye lii naa ci sax li ma may kër may ma jabar may may doom may ma oto may ma ñu baax mën na maa may àjjana la Chérif yàlla yàlla dëggëral sa taxawaay xadara bi tey laay soog a ñëw ah mais xadara bi neex na de. lii moom man mosuma koo gis. danañ fi bëri tànk nag mooy même tey li tax ma mujj annoncé Mansour li tax ma mujj ko annoncé. Chérif démb annoncé ma lii. bi ma koy annoncé démb mi ngi dégg ma tudd ni fii laa jëm xam nga fan la ma fekk. ci fan résidence. recteur Makhtar Nour Seck moo yoroon université bu Thiès. di maye doomam woolu ma. ne ma dama bëgg nga fekke ko. ba ñu yegsee démb ca kër ga ma njëkk jël kaddu bi ma yeggalee dama ne ko lii ma indi damay fanaani waat daara ja te ëllëg maa ngi xadara juma insha allahu rabbuna ca amoo falaa taxaw annoncé ko te ñibbi naa maa ngi yegg Thiès une heure ci guddi gi li tax ma annoncé waat ko Mansour la ma ko woon wax Chérif dama naroon ñëw ci xadara bi man barkeeru bu yeggalee moom mu yëg ni ñëwoon naa fi li tax ma mujj ko annoncé soxna sii ma àndal ci ginnaaw sëtu maam xalifa ñas la xaqan ki mu doon tudd léegi maanaam bàyyee ma ko jur maanaam maam xalifa jur ndeyam xaqan non dafa garaaw man affaire dama yéen lam waaw déedéet du ma la ko jox noonu la bi affaire bi yéen man moom laa de kii ma àndal kii la ki ma àndal ngi nii ci ginnaaw muy soxna Aminta moom laa àndal yàlla daf ma nattu yàlla daf ma nattu déggante na ak shérif ci téléphone moom mi ngi gis shérif mais shérif gis ko bu génnoon léegi shérif da koy laajte xamu ko mu am cofeel nag ci shérif tey mu yëg ni man fi laa jëm si mu ne ma ça fait l'occasion ma ne ko fenn yëkkatiwuma dem rek tey xadara ba xadara fa wëlbatikuwaat ci la ma waxee nag ni il faut ma dem ma daal ne teemaa annoncé Mansour ñemewu ma woo Chérif naan ko nañ daje sa xadara ndax xaw ma fu mu ne xaw ma sax na mi ngi Sénégal ma ne naa ko wax Mansour su suite mi ngi nii waxuma ko neel Chérif de dama ne ko rek dama bëgg a tey dem ci xadara ba est-ce que disponible nga ñu àndandoo dem mu ne ma maa ngi jël sa moto dap la bi may départ génn Thiès laa ko ñu daje fii maag moom ci Pikine ñu jiitle ba aksi fii bi may gaare le shérif di agsi soxna sii ci biir moo tax ma mujj woo Mansour mais démb laa ko annoncé te bu ma koy ne shérif mu am ci moom waral suñu tànk man ak moom tey te li ma waxoon rek gis nga shérif nit ñi toll ñu ci leble nit ñi dañoo toll ci fay bor koo seen muy wër ñun ñu ñëpp ndey yu baax la ñu am ñu jur ñu am baay yu baax ñu yar ñu jàngal ñu ku daw ba dabante ku baax na koo xam ni daf nga jikko yi nga yaakaar ni ku ànd ak moom jëriñu waratoo seet nag ku mu doon rawatina nag muy sëtu sayiduna muhammad ñu am cofeel ci moom bis bii muy wax ca cees maa dem ba ca saalam ne ko yaa koy jàpp de mu ne ma déet jàppal rek ma ne ko sa calendrier yow yaa ko xam yow yaay seet sa calendrier ci weer sàngam ak weer sàngam bis bu la ci neex jàpp ko ne ko nag nii la daan tëdde ak nii cër ba ca am ren mi ngi ci sa loxo parce que li tafsir def ak shérif Mamin tafsir shérif Mamin shérif tànnu leen de ñoom ñoo tànn shérif Alioune Badara mii Serif tànn ko de Mansour Serif tànn ko de Imam Souleymane Serif tànn ko waaw ñoom ñoo tànn Serif waaw man maa tànn Serif xanaa loolu ku ne sañ la tànn am ci yow te di la ñaanal nag yal na sa taxawaay yàlla bëri say kem gis nga ku nit ñi waxoo leen dëgg am na loo nar ku nit ñi waxoo leen dëgg am na loo nar. tabaarakallaahu te li ngay wax hmm. jëriñ na xaalallaahu xaala rasul sénégalais yi mandi nañ ko de hmm. xam nga lu ñu lu ñu mandeegul hmm. al yawma yanfau saadiqiina sidqahum bis bi yàlla bi wax ni ñi doon wax dëgg nag tey la ñuy jëriñu ana ngeen yowmal qiyaamati bu bàmmeel yépp tojee ba ñu taxaw awalin ak axirin ki ñuy njëkk a interroger yonent yàlla Isa Jésus Christ jógal wax mu wax lay toog Muhammad ak li muy foor du jóg deuxième personne bi day taxaw ñu ne kii kan la mu ne man la alquranul karim lu xew ba nga jóg mu ne al yawma aujourd'hui tey jii yanfau saadiqina sidaqahum ña daan wax dëgg na tey la ñuy jëriñu lu mën a xew de waaye yawmal qiyaamati lii nga sax boo ci jógul bu yawmal qiyaamati jibee bu loola amee da bokk ci ñuy jóg man dama bëgg gis nga sama sama xurriya bii ma am sama liberté bi wallahi alazim ku ma ko bëgg a xañ dafa métti maanaam yàlla libéré la ba pare nga daw ba yàgg gisaat ku la tënk dafa metti moo tax Cheikhul Ahmed Tidiane wax na charte bu doy waar muy ixtiraamu jamiil awliya biñ ne ko lu tax nga ne warmaal leen wàllu yàlla yëpp cheikh ne du da ngeen ne man maay mu middu kulli awliya ñu ne ko waaw mu ne kon ku ngeen ormaalul man ngeen xotti sama xorma ndax la mu yor maa ko jox directeur yi ne Sénégal yëpp da ngaa yaakaar ne apéris lañ déedéet ku fa ne nag décret Macky Sall la fa bàyyi ah. tey bu ko neexee nga wàcc waaye moomu réew mi nag ñi mën a fal ñuy appérise da leen di fal ñi ci des compétence yi tax ñu fal leen ñu nekk directeur u fair wala rectorat mm-hmm. mënu ci dara mm-hmm. waaye ñëpp décret ma leen fa bàyyi Cheikhuna Tidiane ne ku ngeen seen mu woote nangul na ma ku ma nangul sama njaboot la ku toroxal njabootu jàmbur kilifa gi nga toroxal cheikh ne ixtiraamu jamii awliya war maa leen walu yàlla yépp mam cheikh mat bamba dëggal ko ci masalikul jinaan ne xaw ma ban tariqa waaye tariqa maulana cheikhuna ahmada tiijaan bokk na ci samay escalier yi ma jaar ba dajeeg sam borom yi lii moo nekkoon sama kàddu tey moo doonoon waxtaan wi Chérif ñu ngi lay ñaanal yal na dëgër sa taxawaay la ma la waxoon keroog laa lay waxaat yow loo sumb ñu nag yow ci ànd incha allah waxu Cees loo sumb ñoo cay ànd fii bu soobee yàlla loo sumb ñoo ciy ànd ña ñu am ñëppit loo sumb ñu ànd ceeg yow parce li ñuy wax ñun ñoo ngi wër. wax naa ko keroog ci télévision man leen li politiciens yi def la ñuy def fu ne la ñuy dem ci àdduna bi maa nga jóge gasaan ren gàmmu goo xam ne tafsir jooy ko doon def nettali naa ko ñoom ay rakkam yëpp toog ci gàmm gu ma doon def ma ne leen damaa yegg si fañ ma dalal am góor gu ñëw naan ma fexeel nag gàmm gi neex daaw tafsir a fi ne def fi dara ma ne ko waxoo dëgg tafsir moom kenn dàqoo gàmm ci senegal <laughs> ci pénc laa wax ni billahi wallahi tallahi ci gàmmu laa taxaw di ko nettali ñoom nguuda ñoo ko woy woon nguuda mbay ku ko xam laaj ko dama ne ko waxoo dëgg tafsir ku ko dàq gàmmu ci Sénégal amul alhamdulillahi rabbil alamin fu ne la dem ci biir réew mi diggante gasaan ak tayif mat na cent et quelques kilomètres mais Chérif kuy wër di dox di xool da xam lu lay jëriñ ak lu la du jëriñ Chérif mi at mu jot mu présider gàmmu ca Mbuur zone Sonatel ma fay fanaan at mu jot du fii la ñu gisee nii lañu xamante ca gàmmu ga defe naa ni mu ngi bëgg mat juróom-ñaari at ci ginnaaw ci njaboot gu ko fonk bëgg ko fa lañ ko xamee muy sunu wóllëre tabaarakallah kon Chérif Ibrahim ñu ngi lay feddaliwaat sunu kóllëre ak yow di la nangulaat sa kilifteef ci ñun di la waxaat ne tànnoo ñun ñoo la tànn la góor ga waxoon nag dafa ñëw ne waa ji banaa la uh-huh. ne ko kooba mu ne ko yow mu ne ko yow maa la jàpp la yaa jàpp <laughs> mu ne ko dañoo jàppante mu ne ko yow da jàppul dara man maa la jàpp boo ma bawee bawuma la uh-huh. waaye moom mënuñoo ba ñun ñoo ko mën a ba parce que ñun ñoo ko téye li nga téye bokkul ak li la téye te shérif ñun ñoo ko téye te boo àndee kilifa goo xam boo amee suggestion bu amee lu mu war lu mu la war a suggérer lu mu la war a wax uh-huh. da koy wax kooku dafa neex a noppal daf lay noppal mooy li nga wax waroo ko woon a wax li nga def waroo ko woon def kooku koo ci àndal su paree nag libéré la ngeen continuer waat seen dund yàlla na sa taxawaay yàlla dolli sa sutura euh, tey day góorlu naa ndax maa jiite université bu Thiès bu dul woon ak loolu it démb danaa jóge Dakar dem fanaani Thiès ndax yitte ca daara ja ajjuma bii di ñëw day su dul woon sama soxnaa ngi nii su dul woon a xew-xew bu ma fas ne dem dama koy xaar bu yegsee ma taal sama watu àndandoo ñun ñaar ca taset waaye même bu ma deful présence su ajjuma samedi danaa fa ñëw ngir jëmmam ñëw fa itam ngir jëmmi tafsir nit ku baax nga koo téye daañu ko téye koo jàpp daañu ko jàpp ku la téye ñu téye ko yal na yàlla dëggal sa taxawaay dolli sa sutura waxtaan la ma santoon ah waaw Mansour na koo boo koo ñu ba ko moom it kenn kenn kenn kenn kenn xamul nu mel ci Chérif ci cofeel ak bëgg Chérif mhm. Mansour damay dem ci Chérif rek xadara ji pour bëgg moom su ci jotee mu jotal ko Chérif mhm. mais wallahi new ma ko wax ko Chérif aminta il faut mu gisanteeg Chérif su ko defee kon nag lii rek moo nekkoon kàddu yi Chérif waxtaan la ma santoon waxtaan na léegi nag ñu ñaan ba déwén ak jàmm kii nag waaw Kumba nag non Chérif waaw Kumba gis nga poste de santé Kër Dabaax Chérif ñëw na fa poste de santé boobu ab Ablaye ngi nii toog di ma dégg man maa fa jaar benn bi rek gaare ci buntu post de santé bi dugg Kumba visité loo ma ko ma ne ko kër guñ tuddee laajab du war a mel nii dam woow wi benn jeune bu ñuy wax Njaga Jaw moo nekk actuellement responsable UJTL bu Thiès ma ne ko indil ma toute la presse ñu ñëw invité ma presse bi yëpp ñu ñëw ñu wane kër gi ni mu mel xaj Moustapha dañuy ñaan mat na mat na mat na ñu wane kër gi ma ne leen kër gu mel nii kenn war koo tudde alxaj yàlla dogal nag ñu filmer ko dem ci sëriñ kër si Abdoul Aziz mu sant ma ca liggéey fexe naa ba kër ga mel na mu war a mel àndandoo ko ak rakkam bi ñu tuddee soxna Kumba Ba Jeynaba bi mu doon tudd dem naa këram lu dul benn du ñaar tabaarakallaahu xam nag fu ko ñoom Kumba teg ak nan lañ ko soppe ak nan lañ ko defe tamit seen seen seen seen càmmiñ waaye def ko tamit seen ku ñuy tiitaroo def ko seen kilifa te loolu kumba dugal na ko sama nopp plusieurs fois kon Chérif lii rek moo nekkoon kàddu yi ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal ah tey nag sa njaboot ñëw na soxna Aminta déggante ngeen waaye loolu moo waral nag man dama nawoon ñëw rek ndax annoncé naa ko démb même bu ma la fekkul woon ñu yëg ni ñëw naa mais moom bi mu nee day ñëw pour gis la mëntuma woon bañ a annoncé moo tax man Mansour sànq la ko yëg wóor na ma bi ñuy daje fii ak bi nga yëg loolu matul waxtu su ko defee ñu ñaan yàlla na dolli sutura waaye incha allah xadara bi duñ namm daañu fi teewaat ay yoon ndax xadara yiw la te yi ñu fiy gën a bëggee yàlla na fekk sax doo fi ne ñu mën fee jaar ñun fekke ko ànd ak nit ñi xadara jullee ndoog ñoom wasifa soog a dem ñibbi yàlla na yàlla dolli sutura yàlla dolli taxawaay wasalaamu aleykum wa wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa kon nag alhamdulilah ba boobu muy wax hmm. maa maye jay na ba hmm. maa maye kumba hmm. maa maye xadiba <laughs> ñoom ñëpp maa leen maye waaw xadiba bi ma koy maye ci kër ga sama soxna laa woo ne ko génnal ci mbedd mi seetal ma <laughs> laa ne génnal ci mbedd mi seetal ma ay seede foofu mu génn gisul kenn ma ne ko demal kër jóob jóob bii tax ak man nga ne ko mu ñëw wuyu ma Diop ñëw ma ne ko dugal ci kër gi nga ne ko mu ñëw ma ñu ñëw ma ne leen kii laay maye kii laa koy may ndax boobu waa ji ñëw na te bëggum mu rëcc ma ndax ay at maa ngi koy di diital di ko napp nappal di ko kar karkaral mënuma koo napp keroog bi mu ne dagaj sama biir kër nag mu ne ma ah déet ma ne ko déet nuñ mën a def rek génnal ak moom mu lew rek waaw ah, tabaarakàlla loolu it maa ko sañ si sañ seen kër ah, xam nga loolu boo ko sañul ci kër nit doo ko fa def doo ko fa def eh, tey yàlla dogal na ni kër gi nekkee seen kër noonu la seen kër seen papa daf ma bëggoon a bëgg bëgg bëgg bëgg ba maara day caali seen yaay nag moom waxe noppi waaw yal na yàlla dolli sutura Haj Malick eh, ñun ñëpp xadara bi ñëpp xàmmee nañ la fii daal boo fi ñëwee man duma leen wax def leen lii ñoom lenn lu ne incha allah kii mooy imaamu barab bi Seydi Jamila may tarixa bi baayam may ko tarixa bi moom mi ñu ànd ci yàlla ànd ci yonent bi ànd ci lépp waaw te mu ngi nii ana la sa yaay waaw jox ma ko